du sutura yooyu nag day dem ba mooy dugal nit ñi ci tuuma te nag man daxala baaba tuuma utuhima ko dugg buntu tuuma ñu tuumaal la. tuuma ñu tuuma la imam mais ñu gis tamit taxawaay bu bees bu président de la république Diomaye fay daal di adopté Ousmane Sonko fekk si ko aussi mu mel ni taxawaay dindi tuuma la parce que liñ leen doon diaboliser bokk na si bu ñu ñëwee këru diine yi dootuñ leen jox yitte ñu gis diggante faloom ak léegi Tiwaawan daanaka ñëw na fi bu ñuy lim ñetti yoon def na ko noonu ca Touba ndax gis-gis boobu nga am dindi tuuma. waaw mais xam nga du dindituuma dafa am lu logique ak lu logiqueul dañu ne mën nañ organiser wu état mën na organiser wu ba lu lu jëm ci na ni état yu njëkk yi njiitu état yu njëkk yi ku demee ni ki Abdoulaye Wade ku demee ni ki Macky Sall ku demee ni ki eh, nuñ ko tuddee ti Abdou Diouf nañ daan doxale doxalin woowu dañ koy changer parce que doxalin woowu dafa màgget mooy li ñu wax nii rek léegi nag koo ci xamante ni gis na ni. peut-être li ñu nar a def mën na am loo xamante ni da koy indi muy changement bu kenn mës ta gis da ngay fexe lu ci xëpp suuf waaye du càggee ni jamono yi président Ousmane soxla wala président euh, le le l'actuel président Diomaye dañ leen a bëgg a jël wala boog dañoo bëgg jël sëriñ si di leen suufeel wala ñu bañ leen a jox seeni cër loolu mënul nekk Sénégal loolu mënu fi nekk ku ko fi def doo dem ñoo la gën a respecté sëriñ ñoo la gën a xam sëriñ si ñoo la gën a xam nag ñi ci jub ak ñi ci jubul nag. ci biir ci biir kër ñi ci jub ak ñi ci jubul état xam na ko gis nga dinaa la waxal ne la képp koo xamante ni jaar nga ministère de l'intérieur fii ku fi dëng xam nañ la ku fi jub xam nañ la ku fi dëng xam nañ la ku fi jub xam nañ la ku fiy daw ngir sa propre intérêt xam nañ la kuy toog muy dox xam nañ la état moo bindoo bind waa xamante ni du weer nit rek waaye ministre de l'intérieur su la waxoon liy xew ci dëkk bi da ngay yanu sa loxo di dem su la waxoon ñi baax ci dëkk bi tamit da nga naan fooge wu ma ko woon loolu lu mat bàyyi xel la. mu mel ni kon am na ñoo xamante ne ñu ngi taasal këru diine yi bu ñu déggee bu baax a baax fi ngay waxee tey mu amoon coow lu fi juddoo jógee kenn ci seen ñooñ di Cheikh Omar Diagne ñu yëkkati ñu indi kàddu yoo xam te ne ko yëkkatee daanaka def na juróomi at indiwaat ko ci penc mi am sax ñu ci mer taxaw ne nañ ko dàq fa muy liggéey ba ci def doxu ñaxtu. ñoom ñoo ko ko faloon waaw koo falul noo koy folle. parce que jàpp nañ ne dafa song seeni maam wala dafa song. bu ñu leen laa laajoon yaa ma wax léegi na ma am na video yoo xamante ni quatre ans ou cinq ans ñoom kon ci video yooyu jëloon nañ ci position avant ñuy fal Cheikh Omar Diagne parce que cinq ans la wala quatre ans wala deux ans mais kon ñoom faluñu Omar Diagne président Diomaye bi nga xamante ni moo toog ak gouvernement am xool Cheikh Omar jaañ ba mu doy ko. jikkooy Cheikh Omar jaañ moo ko doy comportement Cheikh Omar Diagne moo ko moo ko doy xam-xamu Cheikh Omar Diagne moo ko doy te biir na ma ni Cheikh Omar Diagne sañu ta taxaw lu toll ne tarfatal ay ni virgule mu ci xëccoo wala mu ci mooy président Diomaye sañu ko c'est pas parce que jëmmi nit ki la koy xoolal di ko ragale waaye xam na kan jubug Diomaye Jomaay xam na jubug Cheikh Tidiane nu ñu koy tuddee ci Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne waxam ji mu wax du ma ni jaxase na Sénégal mais gis nga Sénégal dañu habitude habitude boo xamante ni daanaka dafa war a dañ mooy lan xam nga tey suñu xëyee ne xalifa Ndiaye mbaxanaam ma dafa dafa verte ba verte bu ëpp moo gën a vert mbubam ña sopp xalifa njaay jël yat ne lu tax ngay tudd mbaxana xalifa Ndiaye déedéet da ngay dem nga xool li mu wax dëgg la wala déet boo ko xoolee ba pare nag nga xam nan ngay def ba sañse boobu ëllëg kenn du ko xool bay cont bay bay bay bay critiquer mbaxanaam wala mbubam ma dellu si ci li may wax te dund lu ñu nëbbu dafa ni gis nañ ni ci kër yu bëri signe maçonnique daf ciy feeñ mais tey dinaa la waxal beneen bu gën a garaaw boobu mu waxul suñu bunt yi léegi dañ ko changé suñu bunt yi dañ ko changé mais bu njëkk demal xool signe bi ñu ci doon def signe pilis lañ ci doon def signe pilis lan la pour bañ a tudd rek ñi koy ñi koy yore léegi la la ñu dem ñun ñun am na jamono yàlla na yàlla yokk ko wér Serigne Moustapha Sy bu Louga te mu nekk franco arabe bu bu fees bu faas moo ñu ci njëkk a yee école franco arabe bi ma amee baccalauréat te mu nekk biir biir point E daf ñu mos a woo ñuy toog di waxtaan mu ne ñu na ngeen def très attention parce que nit ñi ci seen wàllu ngëm-ngëm la ñuy demee ba dugal ko ci suñu bâtiment yi dugal ko ci suñu buntu kër yi dugal ko ci bay ñuy takk mais sëñ bi Dolce Gabbana lan la non non faut pas dire marking nañu wax dëgg gi Dolce Gabbana ñaari góor jigéen yi njëkk sey la mais am na ñuy sol t-shirt Dolce Gabbana di dugg ci jumaa yi di julli mais est-ce que Serigne si xam nañ DG boobu dool Dolce gabana lay signifié dàll yi ñuy sol di Dolce Gabbana jaaro yi ñuy takk di dool Dolce gabana dañ koo xam ceinture bi ñuy takk di Dolce et Gabbana te terewul ba ci verre yi ñuy sol am na ci Serigne soo xamante ni sax gis naa leen ñuy sol Dolce Gabbana te xamuñu ne marque góor jigéen la te ay Serigne lañ waa loolu duñ ci wax ñu waxuma naa non seulement ay Serigne lañ. mais dañuy dugg ak moom ci biir jàkka yi lii may wax nañ ma wax dafa am loo xamante ni boo ci amul information bu leer bu nit ki ñëwee di la ci jox information bu la ci jox xibaar waaye yow danga koy woo mu ñëw mu toog nga ni ko yow kat nee nga suñu jumaa ji ñi ko tabax dafa am signe maçonnique bu fi nekk bu ci nekk léegi kaay mu ñëw toog. giñ naa ci yàlla ni bu ñu woowoon Cheikh Omar Diagne moom dana leen wan ni li siiñ bii siiñ nangam la bu ko defee ñu dem ci sëñ Muntaxa te su boobaa sëñ Muntaxa day sawar ci ñu dindi ko parce que bëggul loolu man gis naa fi oto benn kilifa maay bag la lu maay bag la ñuy wax ci oto yi maay bag demal nga xool kanamu oto ba xam nga lu ñu fa def jigéen ju summeeku def taati neen juutu mooy siiñu may bag bi marque bi moom la dem ba côté oto boo xamante ni oto kilifa la ka def loolu ay taaliba jëndal ko kilifa googu taaliba yooyu mën nañ ko bañ a xam ba jënd ko jox ko ko mais man xam naa ko te su ma ko gisee damay dumayu te su ko sëriñ bi xamoon ba xam ni lii marque la boo xamante ni jigéen ju summeeku taati neen juutu du dugg ci kanamu oto bi ba pare jigéen ja nekk ca kanamam mais nañu dellu si xel yi tey xalaat maanaam imaam bu ma la déggee jéemoon a saisir message u Cheikh Omar Diagne xam fa muy waxee ngir mën a li nga xamante ne joxoñ na ko moo gën c'est c'est c'est lii ma wax bu la neexee nga dem vérifier ko misaal naa la ko tey sama buntu saal melul noonu parce que xamal nañ ma samay fenêtre melul noonu parce que xamal nañ ma mais dama la bëgg waxal ne la am na loo xamante ni ñoom duñu ko xam toppatoowuñ loolu ñoom kilifa yi waaye ñoom ñoo koy campagne jox naa la Dolce et Gabbana jox naa la may baax jox mën naa la ci jox yu bëree bëree bëri yoo xamante ni ñi ñee ngi koy jënd léegi di ko sol c'est parce que ñi koy def dañoo yilif àdduna ci wàllu économie nekk ñoo xamante ni nag li yàlla di tere la ñuy def suba ngoon am na sa sajaada yoo xamante ni ci biir jàkka ji si yooyu la amee lu jar a moytu la nag. parce que parasol yi nga xamante ne am na couleur LGBT. alors parasol arc yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen nit ki bu waxee loolu. bul ne day saboter suñu jumaa am na kilifay murit yu bari yu ma dégg ñu raisonné comme nii ma waxe ne nañu ko woo bu ñu ko woowee mu won ñu fi mu nekk su nekkee lu dëgg ñu dem dindi ko fa seel su nekkul lu dëgg nag ñu soog a jëflanteeg moom. beneen bi ci des beneen bi ci des muy mbind mi Cheikh Omar Diagne waxul en tant que mbindum Cheikh Cheikhul ak en tant que mbindum. Seydi El Hadji Malick xam na ni les écritures les poètes amul luñ ciy corriger parce que respecté nañ xaanun ya ci nekk yëpp règlement yi ci nekk yëpp bu dee grammaire bu dee lu mu mënti doon ci biir respecté nañ ko bu dee arut bu dee mantiq bu dee bayaan luñ ciy bind dañuy respecté yooyu yëpp mais Cheikh Omar xam nga fan lay waxee daf ni tey lu mel ne la Serigne Cheikh waxoon alquran amul dara lu ci manqué mais léeg-léeg nga toog ak nit mu koy firi yow dangay ngay réer wala doo sawar sax ci toog fa parce que jëlul firi alquran moomu lënkale ko ak xewu jamono xew xew jamono loolu mooy problème bi tey misaal bi may joxe man maa ngee ngi xutba Seydil Hadji Malick boo xamante ni dama ko parcourir alhamdulillahi alladi ibtada bi hamdi nafsi qabla an yahmaduhu hamidun mën naa ko résité mais yow mi xamul xutba boobu da ngay ñëw bu treize heures et demi jotee bu treize heures et demi jotee da ngay ñëw toog pour xam li imam nar a xutba loola nag kiy jóg di bayaan da koy bayaane di firi xutba Seydil Hadji Malick waa léegi nag amélioration boobu mooy xutba bi jël ko nga dëppale ko ak xew xew jamono lan la lay jox parce que ba ko Seydil Hadj Malick di bind bind ko ca jamonoom rek bàyyi jamono jii di ñëw dafa xalaat li passé le passé le présent et le futur mais loolu nag lay wax njaboot gi ñi nga xamante ni ñoo yor mbind mi ñuy xool nu ñuy waxeek nit ñi pour nit ñi mën ci natt fa ñu toll ci jamono pour mën a gën a yéeg sax imaam ñu ngi wax ne dañ ko war a dugal si njàngum nasaraan bi pour xale yi jàng ko et loolu ñu sa yeggee faa ñu traduire texte yi te ko wax traduire wax amélioration mais nooy jàngatee taxawaay bi si ñenn ñi am bëgg ko def combat politique waaye kooku ñooñu ñooñu ñu bokk ci kër man jàpp naa ne noonu Seydina Muhammad lañ mais sama waay depuis combien de jours ñu ngi burdu ba ñu buur du tey bu fekkoon ne am nañu yëg-yëg lu mu toll tarfatalaay ni danañ bàyyi lépp lu ñuy def parce que xam ni ñu ngi jëm ci weeru gàmm man foofu lay waxe est-ce que ñoom am nañ cofeel ci Seydina Muhammad nit booy def te politique lalu ko ngay def ngir yàlla ngay def ngir jëmm ji tax ngay def mais da nga ca xalaat bés bi nga koy defee ak semaine bi nga koy defe ak boo koy def yan yan yan yan mujj nga ci am ak circonstance yi lan la tasel ñépp tey ji ñépp di commencé mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril xalqi xayril xalqi kullihimi kan mooy kooku mooy sayiduna muhammad bi mu juddoo bi mu juddoo géej gi safoon xorom dafa dem ba lewet bi mu juddoo garab gi weexoon xaat dafa dem ba saf suukar bi mu juddoo xaj ak muus ñoo gën a bañante dañoo dem bay akolaatante bi mu juddoo muus bu gisee janax balaa muy am la ko neex sàqami ko yéey ko wanaasi ko waaye keroog dañoo fóonante waa bàyyi ma yooyu di fóonante yow nga xaar ba jamono ji nga xamante ni ñu ngi teg burdu wala ñu ngi burdu ngay ñëw di naan da ngay dem fa nga xamante ni bañ koy tabax loola taxul mu jóg muy masaalikul naan nga naan yaa ngi taxaw naan nañ ko rey deretam dagat na. lan moo nekk seen mais politique la ka taxaw naan nañ tuur deretam. dagan na di indi aaya alquran di wëlbati alquran di ko firee selon bànneexu bakkanam selon xalam ak sa ak na mu toll la ca feeñ dégg nga ko Cheikh Baara wax ko de passage te te nit la koo xamante ni moom warta dugg ci yenn yi parce que dafa jóge États-Unis ak tuuma ñeneen ñi ci des ñenn ñi bett leen ci jabaru jàmbur lan moo gën a garaaw loolu ñenn ñi nekk ci loo xamante ni bërki démb fii lu nekk ñu dugg ci génn ci am na ñu ci baax nag foo gis fu kuy dem am na ñu cay baax am na ñoo xamante dañ leen a trompé ñooñu comprendrewul ñooñu ñooy ñi comprendrewul wala boog tooguñu boog def prise de conscience prise de conscience bi fenn rek laa koy tënk dangaa ngaa gis sëñ Muntaxa génn wax ci wallahi bu yëgoon ni vexé nañ ko moom mooy njëkk a yabal sëñ Bass wala moom mu génn bind benn declaration man de fii may waxee suba suba bu defoon déclaration ma rangé wu ci gannaaw déclaration waaw sëñ Bas kan sëñ Bas kan moo ko doyloo def ko porte parole du moom sëñ Bas lan la wax kayit gi indi coow li parce que du problème wax ju Bas wax ju euh, nuñ ko tuddee ci Cheikh Omar Diagne wax wax joo xamante ni deux ans la quatre ans la kayit wi indi wax ji Serigne Bass dafa génn ne suñu yoon nekku ci yëguñu tinuñu ca jamono yooyu ñu ngi commencé di classe ki nekkoon ambassade fële ca réewum euh, nu ñu koy tuddeeti euh, Jidda xawma Arabie Saoudite xawma euh, ah, Arabie Saoudite te ñu jëlee ko fa une semaine avant màggal mu ngi génn mais wax jamuy wax yëpp da ngay xam ni am na ku muy tontu mooy Serigne Bass lay tontu yow léegi bu fekkee ni ki nga xamante ni tànn nga ko muy sa xalifa di sa njiit waxul ŋaawul nga bëgg a jël nag nekk arme boo xamante ni may wax ngay mbapp mbapp di wax bay yuut naanaay woy ñun loolu du gëm Serigne Touba Serigne Touba ku ko gëm am na comporté wa comportement yoo xamante ni doo ko comporté wu te nag nañu def attention ci Cheikh Omar Diagne man day na yàlla waxee ni du ma farak kuy tooñ man xalifa Ababacar du ma farak kuy tooñ waaye Cheikh Omar Diagne nañu def attention ci moom ba ñu commencé seen lii ba léegi juragul ndam te tey bu ñu leen tànnalee tànnalee micro balaa ñuy pare ci micro bi fenkoo bër ci démb donc ci mujj xaw ma démb. réeroo ci seen biir politique ko laal. politique moo ko laal loolee di gis imaam xalifa Ababacar Ndiaye dernier point bu ñuy waxtaanee dissolution wu assemblée nationale naka nga ko jàngate